daanaka bile xumbaay ak mbumbaay lañuy nemmeeku saa yu récréation jotee mu doon porox ndoolu rek ci gone yi ngir ñu xool lu ñu daal di lekk tàngal jus ak yeneen mu mel ni rek lu waay bëgg am na fi. mburu ak bonbon ak jus. popcorn. yaa mi doo ko carvette. damay jaay popcorn. ay crevettes ay jus yu bari damay jaay tamit gato ak yeneen. te bisaab daneejo gâteau la. maa jënd sama xaalis ma neex jënd kay. yi ñuy jëfandikoo nag daanaka mu leen di jural ay intoxication maanaam ay mettitu biir bile élève nekk ci classe su CM1 yëf yi daal di koy dal. ñu bari nag euh, ñoo ngi woy di fësal seen njàkkare euh, ci xarala yu yees yi. mënoo xëy jour sa classe te amoo ñetti absent wala ñeenti absent suñu ñaari élèves tey dañ koo lekk kenn ki biir bi mooy métti mu xam daanu ci biir classe biñ ko yóbboo ci hôpital bi tuuti rek keneen ki nga xamante ni aussi maamam moo ko doon jaay kooku aussi biiram muy métti. ngir li mel bañ am ci bile école ñi fare ci école élémentaire El Hadji Mor Diop Kumba daal di jël ay dogal. du ku nekk rek mooy jug ñëw jaay si ci école Mor Diop fii pour nga mën fee nekk il faut nga am autorisation wu service d'hygiène. ñi fiy jaay ñëpp ñun xam nañ leen. mais man yàgg naa ak ñoom kenn ku ci nekk xam naa la te li ñuy jaay vraiment baax na te set. gannaaw yooyu la dogal sax mu mel ni nag aaye gone yi ñu daal di jënd lekku mbedd wala sax ñu ràññee lekk gu baax ak gu bon daanaka jafe la def. waral bi la laaj ji sampu naka la ñuy def. il faut que. jàpp naa ne li ñu war a def mooy fexe ba am ay cantine scolaire loolu rek mooy solution bi ngir mën a jàppale xale yi ñu mën a lekk lekk bu set te sell. sain et balaa boobu nag lu doon gën moo di gune yi li ñuy lekk ñu daal di koy defaree ci kër yi itam daal di leen sensibiliser balaa ñu amee intoxication alimentaire.